وقائد الخر المحجلين سيدنا ونبينا وحبيبنا طبيب قلوبنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصعبة الحر الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل حقدة من لساني يفقه قولي مبوكي جولي دي مبوكي نيومين دي جاكارلو سي سين تيليفزيون دي كيو تي في نيك فورس برايفت تي في سي غامبيا امات ني نيوم بيكت ديلو سوات اك يين سي سين بروغرام بيغا خامن موي كير نبي mbokk yi ñu ñaan ngeen dégloo ñu xel te bañ di ñu dégloo xol waaye ñu ñaan it ngeen jéggal ñu bépp njuumte ak rëcc rëcc te xam ne du suñu coobare waaye euh, dafa fekk ne matadik doomu aadama alkamalu lillahi mat yàlla rek mooy ki ko def waaye mbokk yi fa tabarakallahu ñu am mbégte ak kontaante di nuyu mbooleem téléspectateurs yi nga xam ne ci waxtu wi nuy àddoo ñu ngi jàkkaarloo ak ñun fa tabarakallahu di ziyaare euh, ñëpp fa tabarakallahu waaye niñ ko baaxoo rek di defee di ci feggoo ak sunu mbokk daara di sunu xarit di sunu genn wàllu di imaam Alioune Badou Sakho fa tabarakallah imaam Aliou ñu jox la nga nuyu ak mbokki téléspectateurs si bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyai walmursalin سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله mbokk yi seetaan te di seetaan QTV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara waaye di leen ndokkeel ci bés bi di leen ndokkeel it ci waxtu yi waaye di jiital ci nuyu bi kilifa diine yi teg ci kilifa aada yi Seydina Ousmane ci ñëpp nag yow lañ ci war a jiital yow mi nga xam ne soo lalalee rek taay bi day lal day tàlli ba nga xam ne ku ci war a mën a toog wala ku ci war a mën a dox dina ci dox te du fakkastalu ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax door a nuyu nag kilifa diine yëpp jiital ci imam ratib comme ñu koy faral di tuddee imam Thierno Alioune Maska waaye suñu ko nuyu nuyu nañu mboolem imaam yi ak borom xam-xam yi kilifa aada ñi jiital ci ki yàlla dénk réew mi waaye ak mboolem ñu nekk ci gannaawam yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara waaye Seydina Ousmane di ñaan yàlla bu baax mi yal na yàlla dolli sutura dolli jàmm dolli tawfiix ci réew mi ak ci réew yi jullit yëpp bi jaay seydil wujud waala monsieur Seydina Ousmane ah, tabaarakallahu imam aliyu fa ñu ngi amaat mbégte ak kontante di la jox yóbbante euh, nit ñi fa tabaarakallahu ci programme bi passé ni ñu koy faral di waxee bu passé rek daanaka nit ñi dañuy jàpp ne boobu mooy bi gën a neex waaye dañuy jàpp ne it mooy bi ëpp solo ci li nu waxtaanee mu mel ni ni nga koy waxee rek Euh, mu nekk ñaax nekk itamit fa tabarakallahu euh, ak euh, encouragement mooy dañu gën a dolli ñaaxaate fa tabarakallahu ngir ñu gën a góorgóorlu ni nga ko waxee tamit ñu nuyu kilifaay diine ji te nuyu kilifaay aada yi fa tabarakallahu imam ratib imam Thierno Alioune Maska ak sunu kilifa professeur docteur Omar Dia ak mboolem kilifay diine yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi waaye itamit ñu nuyu imam Aji Ousmane Dia bi nga xam ne fa tabarakallahu moom mooy keyboard programme imaam Ali ñu nuyu waa kër gi euh, ki nga xam ne moom mooy fa tabarakallahu euh, keyboard mboolem kiw group di Mouhamad Dia fa tabarakallahu ñu ziar ko nuyu ko waaye ñu nuyu euh, soxna Anam Dia mi nga xam ne moom moo nekk ci bopp liggéey bi waaye ñu nuyu mboolem technicians ak caméraman ak caméra women ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi bañu mëna ag fi ñu ag tay inshallah euh imam aliou fa tabarakallahu ñu jotal la yobante yo xamni ni dafa jógee fu sori euh sa mbokk momu sall ta nek ci mauritani tabarakallah jox nañu ay euh way ñu jot yobante yu jógee ba balangar euh fa tabarakallah jot yobante yu jógee ba euh maa ngi fàtte dëkk bi jaabang mm-hmm. fa tabaarakallaahu euh, góor gu nekk jaabang nekk imam fa tabaarakallaahu di ñu topp lool euh, di la jotal yóbbanteem nee na mu ngi am mbégte ak kontaante ci xam-xam bu rafet bi waaye itamit ci waxtaan wu am njëriñ bi euh, loolu daal ay yóbbante la woon yoo xam ne fa tabaarakallaahu ah, nit ñi yàlla def na fa tabaarakallaahu ñu jox ñu waaye imaam ali ñu santaat yàlla beneen yoon ndax fii la ñu toogoon ànd ak waa àdduna yëpp mm-hmm. ñaan yàlla def jàmm ci xew-xew bi xewoon Sénégal muy wate bi yàlla dogal na xew na ci jàmm te itamit fa tabarakallahu yàlla wis ci ndox mu sedd ba fi toll nii ñu sant ko ndax daf ñoo wax nañu bu ñu ko ñaanee danañu danañu may waaye bu ko santee danañu dolli la in dakartum la azidannakum wala in kafartum in adabi la sadid fa tabarakallahu ñaan yooyu ñu fi ñaanoon ñu am mbégte ak sant ci yàlla bu baax a baax a baax allahu ñu bëgg a waxtaanee ki nga xam saa su nekk rek euh, sunuy waxtaan ci moom dafay mel ni tey la. dëgg la mooy euh, ku sakkan ki mhm. muy Seydina Muhammad. sallallahu alayhi mi nga xam ne. imaam Ali bu ñuy waxtaan ci moom. looy waxtaanee rek dafay mel ni yaa ngi jàkkaarloog moom dafay mel ni tey la. dëgg la ndax moom la yàlla joxoñ ñu njëkk ña. Mhm. ñu mujj ñi. Mhm. ak ñiy ñëw ëllëg. dëgg la ñi fi nekk tey ña fi ñëwoon démb. ak ña nga xam ne fa tabaarakallaahu ñooy ñëwi ëllëg ni ko woykat ba waxee woon laqad saada man yaati kama saada man mada fa tabaarakallaahu sang la boo xam ne ñi fi nekk ak ñi wéy ak ñi ñëw ëllëg ñëpp euh, fa tabaarakallaahu daf leen doy nekk seen sang macha allah euh, ñu di ko waxtaanee euh, te imaam Ali ñu toll woon foo xam ne dafa laal ñaari mbir mhm. waxtaan wi wax naa la ne nit ñu yóbbante nañu mhm. doon nañ sàkku sax ñu gën ko yaatal mooy li ñuy wax yarluwaal dëgg la euh, fa parce que ni ñu jëlee Seydina Muhammad jox ko sunu yaay Khadija. Hmm. mu nampal ko. Euh, sunu yaay Alima ngeen baal ma mu nampal ko. Hmm. waaye it mu yar ko. Hmm. ci yarinu ni ñu ko xamee ci jamono mooy tàggat ko. ci ni nuy defal ndaw. Euh, ak tamit ci wàllu làmmeñam ak yépp rek waaye fekk booba tolluwaayu nit moo fa tolluwaay boobu yonent bi fekk na mu làq lépp. ngir yàlla moo bëgg a wone rek ne foog mu am sabab euh, ñu waxtaanee nag diggante ñaar ñooñu muy sunu yaay Aminatu mi nga xam ne moom moo indi Seydina Muhammad jaar jaaram ñu waxtaanee sunu yaay Alimatu Sahdiya mhm. mi nga xam ne moo jaar moom la jaar ci loxoom mhm. mu mel ni jaar na ci diggante ñaari jigéen maam mhm. Ali kon war na ñoo taxaw seetlu jigéen nekk di lu am solo war nañoo taxaw seetlu solo jigéen surtout nak ci biir l'islam jeuf sirna Ousmane euh limay wax rek moy sa yo lalé rek machallah kum neex day tok parce que sa dafa machallah dafa tege ci yoon yalna yalla yàlla sa kaddu amin ya rabbi te deugere la lol da nga wax wax ju am solo mo dina wa jo xamne sa yo waxtan sa yo koy waxtaane dafay mel ni da nga ak mom sirna Ousmane yalla mo ñu njëkk sa mhm. na japp len ne guddi ak bëccëg yene gi jakarlo sirna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirna Muhammad ñu ne guddi ak bëccëg suba ak ngoon waxtu wu ngeen ma tuddee xam leen mag maa ngi jàkkaarloo yéen. dëgg na ne bu leen fàtte ne waxtu wu nit ne asalaamaaleyka yaa rasulallah. Mhm. nee na malaayka yi ca xabrum ba ñu ngi naan ko Seydina Muhammad am na diw doomi diw ci dëkk sàngam nuyu na la. Mhm. rasulullah nag man tam dama fokk ma fay borom. Mhm. te Seydina Ousmane xoolal li yàlla dogal. ñaata ci ay millions ci ay jullit ñooy toog bés bu ne. waxtu wu ne kenn ku nekk di taaya te naan asalaamu aleyka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh Seydina Ousmane secret bu rëy ca ñi nga xam ne yow mi nga xam ne ak ñi seetaan ñi nga xam ne xam nañ ni yàlla di waxe wala xam nañ ni arab di tëralee seen wax xam ngeen ne ku fi nekkul koo xam ne jàkkaarwuloog moom da koy wax asalaamu aleyhi waaye ki nga jàkkaarlool moom ngay wax asalaamu aleyka yow ma ma jàkkaar yow laay wax ki asalaamu aleyka ah, maanaam présenté déedéet ki nga jàkkaarloo muxaatab la muxaataba dafa présent la gaa waaye itam dafa tegtil muxaataba mooy ki nga jàkkaarloo di wax ak moom Seydina Ousmane nga xool taay ni ko yàlla farataalee defee ko noonu ci biir alquran defee ko ci julli defee ko noonu ci biir julli maa ngi jégalu jullit bu toog ci julli fokk mu ne asalaamaaleyka ayyuhan nabi te li ci gën a bu ne asalaamaaleyka rek waaye dana ko waxaat ayyuhan nabi yow yonent bi laay wax maanaam ñaar yëpp jinaas mu xaatab la ñaar yëpp daal wax la joo xam ne da ngay def li ñu tuddee mu xaataba ci mhm. waxante mhm. te it ñaar yëpp benn bi da nga koy da nga da nga nuyu ki nga jàkkaarloo beneen bi da nga ko boo xam ne ki nga jàkkaarloo te woowaat ku la jege nga mhm. koy nga koy woo mm. fa tabaarakallaahu loolu lu muy teg mooy yàlla mu ngi ñu bugg a xamal ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñu bugg xamal ne bu ñu jàppee ne jëmmam jigéen a nañu xam ne la fa nekkoon mu fi Seydina Ousmane bàyyil xel ne waxoon nañ ci waxtaanu njëkk ya ne la yàlla li bi li waxal boppam ne kuntu nabiyan aaliman bi nubuwati wa aadamu bayna ruuxi wal jasad bàyyil xel kàddu ga mu làkk moom la yàlla di làkk ak ñun ci aay ci ci ci ci moom la al moom la ñuy làkk ak ñun ci taaya bi yonent dafa wax ne nekk naa di yonent bu xam nubuwati suma nubuwa yàlla di wax ci alquran ne inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman junj naa ci waxtaan wi weesu ne nañu bàyyi xel ne baatab rasul ak baatam nabi dañu wute rasul mooy bi mu nekkee jëmm fii ci àddina mu am ñeen fukki at yàlla wàccee alquran te ne ko balix balix maa unzila ilayk uhuh. li yàlla wàccee ci yow na nga ko jottale jugal nga dem woote ji kon maa la yónni jugal nga dem uhuh. waaye la ñuy tuddee xam-xam ba ak nubuwa waga yàlla bi mi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci alamul ghaib ba nga xamne dara xamu te yàlla nga julle ci yonent bi nimu don nimu tollu mom yàlla nga julle ci yonent bi nimu tollu julle ci yonent bi nimu mu yàlla waxna len leen yàlla nimu mu yàlla moy commencement bu amul tàmbali comme jitu gu amul tàmbali mujjam tam amul jeex Mhm. kenn ku nekk ku dut yàlla sa sa commencement am na tàmm sa tàmbali ma am na commencement mhm. mooy dañuy wax ne yaa ngi fi nekk at sàngam yaa ngi mhm. génn a ngi génn àddina sàngam maanaam seen njëlbeen daal am na fu mu doore am na fu mu doore même àddina am na fu mu doore te it am dalul ard xeeral ardi wa samawaat yàlla wax ci suuf ne bés dana jot ma lem ko indi leneen loolu kon xam ngeen ne àddina boobu ngay jeex ñu dem beneen boor nu ko noonu it nañu xam ne yàlla mu ngi julee ci yonent bi num anam boo xam ne moom yàlla du jeex mhm. moo tax mu ngi wax ne inna allaha malaykatu yusalluuna ala nabii mhm. a nabi la fa làkk mhm. maa ngi julli ci yonent bi nga xam ne nabi la kon julli googu duune bi yonent bi bi yonent bi juddoo ba yàlla jox ko nu booba si la yàlla doog a commencé di julli ci moom moo taxoon asalaamaaleykum ayyuhan nabi googu ñuy teewlu dañu xam ne lu xóot la ñu wax eh, koo xam ne na mu nekkee woon ca alamul xëy bi mhm. ak alamu shahada bii ñu ne mhm. ak ni mu fàddoowaate ci jëmmu nabi googu mooy continue nabi googu ngay julli ci mhm. moom ngay woo moo taxoon nga ne ko asalaamaaleyka ayuha nabi wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi bugg a xabaabal moo tax li nga wax ci anam boobu mu doy doo xam ne lu xoot la ñaareel te imaam Aliou dafa am solo li ngay wax nii dafa am solo pour nit ñi xam ko parce que euh, yonent bi niñ ko waxee woon ci njëlbeen ni ko sunu kilifa gu baax gi di waxee ne eh, aslu nuuraaniyam mm-hmm. eh, loo ci natt dafay delluwaat ca nekkuk sunu borom ga subhaanahu waaye boo demee ci aslu turaabiyaam boo ñëwee dañu koy jéem a méngale ak nit ñi te duñ mas a méngoo it nag mm-hmm. dana am loxo comme yéen mooy li mu waxoon ca aaya ba ne eh, qul innama ana basarun mm-hmm. mislukum loolu mooy aslu turaabiyaam waaye yuuxaa ilayya mom moy aslu nuraaniya fa tabaarakallaahu li ngeen di gis de tek ci seen beut mu mel ni seen jëm ji nit la comme yéen parce que li ngeen am am nako li ngeen di def mu def ko waaye nag balaa lii am na lu fi newoon te loolu mosu fe jóg sallallahu alayhi wa moy li ngay wax ne assalamu alayka ayuha nabiy tey tamit fa tabarakallah imam ali yonentou bi bu fi joge won semaine rek dotuñ ko ray roy macha allah xam naa ne daal ñu waxee ne roy leen ko. te bu leen mas teg gi seen bët ci ne ba pare jëlee ko fi kon ñu koy royee. <laughs> macha allah. soo gisee yàlla na ñu roy leen ko fi mooy bi mu ko fi indee daf fi sax te daf fi nekkoon it balaa mu ko fi indi. ndax li moder li moderniser doomu aadama li ko modern modernise ba mu nekk nit. am ak nite. yàlla mu ngi ko def ci moom. dëgg moo tax bi mu ñëwee. Mhm. nit dafa mat. maanaam ci wàllu insaaniyam daf ci mat. Mhm. ndax ba mu ñëwagul amoon na yu mu méngoo yoo xam ne ku ne xam na ni nit matutoon ndax nit ba mu nekkee nit imaam Ali daanut sol yére xam nga da loolu du euh, du du ak nite du ak insaaniya mhm. nit ba mu nekkee nit ba pare daan rey moromam nitam léeg-léeg sax di lekk ci yàppam mhm. xam nga loolu du nite mhm. nit ba mu nekkee nit daanul dëkk fenn maanaam daf daan seet euh, mbeddum kese rek dëkk ca xam nga boobu way bi yonentou bi ñëwee maanaam ya mot matul won yañ tàmbali won ta matuñ mom dafa ñëw mottali ko moo mu waxoon ne ma bu'ithtu li utammim makarimul axlaq kon fa tabarakallahu ci wàllu góog nga doon defayen pour ñu xam yonentu bi sallallahu alayhi wa ne jógu fi te itamit nekk gum fi nekk moo sunu borom jox ñu jëf ak wax yoo xam dafay dem ci moom directly euh, loolu lay firi te dafa mat dafa am mat a jàngale pour nit ñi xam ko macha allah imaam ali ñu toxu ci tomb ñaareel comme ni ma la ko waxee dañu nekk ci jamono boo xam ne western euh, idéologie dañu génnee xelaat ne at mi daal war nañ ci tànn benn bés boo xam ne dañ ci def taxaw seetlu bàyyi ci xel jigéen màggal ko ci maanaam feeñal taxawaayam ci kaw suuf Euh, te loolu mu woroo ak ñoom liñ fekk l'islam taxaw l'islam dafa fekkoon ñu xañ jigéen ak xam hundred percent amul benn ak buñ ko jox comme niñ ko waxee bu njëkk ci waxtaan yi jiitu mooy ne duñu bu bu jëkkëram dee du doon ku koy takk doo ko can ku ko ëpp doole jël ko dañ koy jëriñoo daal ci anam bu ñu neexee nu ñu neexee loolu lislaam fekk ko fi génnee ko jël ak yoo xam ne moom la jox jigéen yoo xam ne solo sa nam toll tollu wut ni àq yi mu jox góor ci wàllu teral ko ak ci wàllu bàyyi ko xel ak ci wàllu protect ko euh, loolu yàlla dogal jigéen ñu waxtaan nag suñ waxtaan tombeek lii ñu bëgg a méngale l'islam fi mu teg jigéen ak it sunu ñaari ndey yii nga xam ne fa tabaarakallah kenn ku ci nekk dafa am symbole bu mu taxaw ci lislaam Euh, ci dundu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sunu yaay Amina. Mhm. mi nga xam ne sunu baay Abdallah bi mu waree jur yonentu bi yàlla daf ko tànn loo jigéen. Mhm. mu tànn jigéen joo xam ne jaadu na yell na pour mu doon yaayu bi yonentu bi ñëpp bëggee nampale itamit mhm. yàlla dafa segg kiy nampal. mu tànn jigéen joo xam ne war naa nampal bii yonentu ak tey ci tolluwaayu jamono. ak loo xam ne war nga ñu ko mun a jàngal rek ci lislaam loolu mooy suñu tomb ñaareel jërëjëf Seydina Ousmane macha allah wax nga lu am am solo eh, mooy le 8 mars foo naan la ko français yi naan la ko français di wax muy 8 mars ah, moom moom jigéen ñi ñoom mu doon loo xam ne comme ni nga ko junjee mhm. dafay tegtale ne dañ leen na jox bés boo xam ne dañuy feeñal liñ leen may ci ay xaq mhm. ñu di ko màggal ak di ko yëngatu nga méngale ko na ak lu am solo mooy wane ne jigéen daal ndeke mooy uuf mooy jur mooy nampal mooy lépp daal mm-hmm. nga wane ne it suñu borom subhaanahu wa teral na leen tiraanga ju rëy mm-hmm. Seydina Ousmane balaa ñoo dugg ci diggante Amina sax mm-hmm. ak xalima waaye ñu xoolagum dëgg-dëgg naka la yàlla defal lan la yàlla defal jigéen benn bi ci njëkk mooy bu juddoo yàlla dafa wax papa ko ndey ko jur de waaye sa doom bi bu dee jigéen la wala balaa maa wax sax waxi waxi waxi ndey mm-hmm. waaye sa doom bi bu dee jigéen la mm-hmm. mu ne mu ne ko sàmm ko taxawu ko mm-hmm. bu mu am benn soxla bu mu jooy dara del génn di daw di indi di ko jox moom jigéen waaye si loolu bu demee ba toll ci war a jàng papa yaa bàyyi yàlla sa sa ko sa sasati ko ne ko na nga fexe mu xam na nga fexe mu xam ci lépp lu koy jëriñ nga xam loo ko lépp lu koy jëriñ mu dem ba ne mat muskal la ba nga xam ne léegi war na mën a dem ak boppam yàlla wax bàyyi ne ko feek mu ngi feek mu ngi amagul jëkkër dara warut ko ci kër gi téye ko def ko def ko lépp defal ci moom lépp bu demee ba am jëkkër nag yàlla wax bàyyi ne ko ba léegi yaa koy seetal góor goo xam ne foog nga ne am na yërmande am na yërmande te dana góor góorgóorlu te dana dana dim dana dimbale jigéen li mu am dina ko ko jox nga door nga door koo jox sa doom bu demee ba ca loxo kooku nag yàlla tam jël jël jëlati xetam tiim tiim góor gi ne ko xam nga xam nga li la jox mu ne mu ne ko du jaam nit lañ la jox boo xam ne ci kër la nekkoon te tiraanga la fa amoon waxuñ ko woon mu dem liggéey waxuñ ko mu taxani waxuñ ko mu rooti waxuñ ko dara lépp góor a ko war a def comme ko indil nañ la ko nag yow danañ la sa ci moom ay mbir mhm. benn bi ci des mooy xam nga ne mu ngi doon lekk kër baayam na ko jox mu lekk xam nga ne mu ngi doon oddu kër baayam na nga ko jox mu wodd xam nga ne mu ngi doon dëkk kër baayam na nga ko jox néeg bu baax xam nga ne eh, lim manque benn kese la te loolu ko fi indi ci yow mhm. te loolu it na nga ko ci jox lu mat sëkk mooy li ñuy tuddee sëy na nga ko dëkkoo na nga ko dëkkoo mhm. Seydina Ousmane yàlla dëkk continuer jigéen mhm. gis nga bu demoon ba nga xam ne léegi même jigéen bu sëyam toogoon rek am lu am lu ca manqué ñu ne sëy ba tas na yàlla dafa wax bàyyi ne ko da nga jëli waa sa daawal dem ko ñu ne bàyyi nekku fa bàyyi deena yàlla ne ay xanaa jigéen ji amul ku mbokka ndey ak bàyyi ci góor ndem jëli dem jëli ko ana brodaam broda bi ne ñëw enu daw si taxawu ko ñu ne kooku nekku fa yàlla ne ankay am na ay jigéen ji am na ay doomi bàyyi jigéen daal foo ko gis yàlla ne ci tiraanga lay ne ci nguur lay ne ci ci ci ci jàmm lay ne su demoon ba yooy yëpp amul waa kër yaay ja di nijaay ya dem jëli nijaay ne yàlla ne dem leen jëli ko même bu ngeen amoon bu ngeen demoon leen loolu ba lislaam doon dox yàlla dafay teg gouvernement bi ne leen jigéen kenn du ko toroxal te jigéen naaj war koo lakk mhm. eh, safar war koo tàng mhm. kenn waru koo dóor même Ousmane mhm. ñun ñi ameen ñun ñi nga xam dañoo amee soxna yi aada ci aada la ñuy dundee waaye bu ñu doon dundee diina dëgg jigéen du dem marché du def lenn yëpp yow góor gi yaa koy def kon nga gis ne yàlla ni mu ni muy joxe tiraanga jigéen dafa rëy natt bi ñu dal nag mooy lislaam bi nga xamee ne jox na tiraanga jooju jigéen def ko muy buur mhm. boo xam ne du ma sa follee ko mhm. Seydina Ousmane jigéen mooy buur boo xam ne du ma sa follee ko xoolal ngay dem di dem ba ci kanam nga nga am doom yow jigéen mhm. nga dem ba ci kanam sa jëkkër mage yàlla nag teel a jox te mu te loolu daf ko def muy luwaa ci alxuraan nga xam ne ko ko defut sa boo dajee sa borom mu duma la man nga cee dem safara mooy lan mooy mu ne bu fekkee ne jigéen ji dem na ba mage jëkkëram génn àddina yàlla wax doom na ko ay doom bu góor mu ne ko ah, mu ne ko léegi nag li bàyyi daan defal yaay yow doom bu góor yaa koy amee boo ko defu dama lay duma mën naa la si sax dugal safara jigéen doom na jóg taxaw di ko teral di ko teral ba mu dem ba nekk mag mu di ko teral ba bañ ba ba ba fa ñuy mujjee Seydina Ousmane nga xool tiraanga jooju yàlla defal jigéen ne leen waqar na fii bi yóti kunna wala tabarraj na tabarrujal jahiliyati la leen rek laa leen sant mooy wa aqim na salaat wa atina sakaat wa ati a allaha wa rasulahu mhm. yàlla wax jigéen ñi ne leen mhm. leen rek laa bugg ci yéen mooy na ngeen nekk fu leen naaj du lakkee mhm. mooy na ngeen nekk fu leen naaj du lakkee xam nga ba yà bala yàlla ne toogal si kër gi mu ne nag waaye mënu leen a ñàkk am soxla bu ngeen di génn it mel leen nuñ leen respecté wax na fi biti ko ne waaye nag mel leen nuñ leen respecté bu ngeen di génn bu ngeen génn nag ku leen gis na na leen naw bu geen génn ku leen gis na leen naw mu wax leen ne bokk na ci li ma leen may mooy mooy mooy na ngeen di damm seeni seeni gët ban ñaareel ba it na ngeen na ngeen defar seen baat ba nga xam ne bu leen bu ngeen wax ak nit mukk nit ki di leen yeb mhm. Ousmane tey àddina li ko yàq mooy jigéen joo xam ne day wax ak nit defee waxinam noo xam ne góor dina ko yeb mhm. tey bu tey boo góor gu jógoon jublu ci jigéen mu waxee moom sérieux waxin woo xam ne xam nañ ne caaxaan nekku ca góor dina dellu gannaaw mhm. moo tax seytaan li muy taaka taxal yëpp ci jigéen ñi la koy jaare mhm. moo taxoon yàlla ne leen yéen da ngeen am tiranga de leen waxee ni buur yi di waxee mhm. bu ngeen génne ni buur yi di génnee bu ngeen génne na ngeen génnee ci kër na ngeen mel woo xam ne wu rafet la na ngeen sol solin wu rafet na ngeen wax ni kilifa yi di waxee xam nga kilifa du wax ndànk du wax ca kaw <laughs> kilifa moom eh, eh, du wax ca kaw moom day wax ndànk rek di leen xool ci suuf ndax ñu respect leen ngeen génn dem doxi seen soxla ngeen si siwaat mu ne leen ak leneen li ma bëgg mooy ngeen gëm ne nag man yàlla maa leen joxe tiraanga jooju delloo leen ma tiraanga ji mooy taxawal leen julli de leen joxe asaka de leen ma topp tiraanga ji la yàlla defal jigéen bu ñu demee ba ci àddina li nga xam ne am am am am la ci wàllu alal yàlla ne jigéen loo fàggul sa bopp yaa ko moom sa jëkkër amul sañ-sañ dépassé ko fi sa baay amul sañ-sañ la dépassé ko sa boroo amul sañ-sañ la dépassé ko waxuma loolu rek sax waaye yow jigéen sa sa jëkkër sa borooda bi la amee wala sa jëkkër la amee wala sa bàyyi la amee moom bu amee na ñëw jox la yow boo amee dencal yow boo amee dencal bu la neexee boo koy lakkit yoonam nekku ci tiraanga jooju bu ngeen demee ba génn àddina am yàlla ne dëgg-dëgg jigéen benn responsabilité warul ko benn responsabilité warul ko ci kër gi man yàlla defuma jigéen mu responsabilité war koo war waru fee joxe dépense waru fee tabax kër waru don donte loolu lépp waru ko mhm. waaye dogal naa ci li nga li nga li nga bàyyi gannaaw yow bàyyi mhm. wala dogal naa ci li nga bàyyi gannaaw yow borooda wala dogal naa ci li nga bàyyi gannaaw yow doom na ci jigéen am nangam donte góor a ko ëppale mhm. parce que moom du joxe dépense du def lépp comme ah, Ousmane li doon xel nangoon kay mooy koo xam ne comme que yàlla nee na bul joxe dépense bul togg añ bul togg sax reer bul duggi sax marché na ko lépp góor def dëgg la aada moo ñu yóbbilul ak dimbalante bu la ne bul def yooyu yëpp dëgg-dëgg mënoon naa wax ne comme que bul def dara nag yow buñ la jox dara hmm. waaw waaye déedéet yàlla ne déedéet du ma leen def loolu bu góor amee benn na jigéen am xaafam hmm. donte aaf boobu su ko neexee mu def ko ci poosam bu koy lakkit moo kon moom la neex ba pare pour ñaari yam am bu ñu nee góor xam nga. Euh, imam Ali léeg-léeg dañ ñuy nax dañ naan góor ñaar jigéen benn rek em ca te te mirage du du foofu rek. du foofu rek léeg-léeg si mhm. mirage yéen ñi jàng mirage léeg-léeg da ngeen gis fu góor em ak jigéen. danañ em ak jigéen waaye li ci gën a yéeme mooy même bu góor bu amee benn. bu góor bu amee bennam bi benn bi yàlla daf koy jël et tiim ko ne ko. Mhm. sa benn bi nga am fuul bi nga am. Mhm. jigéen na am aaf waaye sa fuul bi nga am maa ngi la jël maa ngi maa ngi la tiimale suma yet bi demal nga jox ci dépasse jigéen te jigéen moom bosam na ko denc mhm. demal nga jox ci dépasse doomam demal nga jox ci dépasse say sista ñu dindu ci yow moom amoo lu mooy dem ci dem liggéey boo ñëwee jox leen kon benn góor bi anam mhm. Seydina Ousmane moo tax jigéen buur la ba ba muy de ku ci xam loolu nag mhm. da ngay xam ne yàlla jox na la cër boo xam ne du du du du du ay organisation ñoo la koy jox du àddina ñooy ñooy waxtaan mën la ko jox yàlla mi xam nit xam dundi nit xam liy tiraangay nit xam tiraanga te defal doomu aadama tiraanga mhm. moo xaasal jigéen jox ko tiraanga am aji Ousmane jee di wax ne gender equality gëmut ko gender equity la gëm ndax léeg-léeg boo yemalee xañ nit àqam euh, nim ñu koy faral di misaale ne ñu léegi kii de dafa am jëmm yaramam dafa dafa am jëmm mhm. kii tuuti mhm. léegi nga ne three meter piece laay jënd dama leen di yemal ku nekk trimita mhm. ka am jëmm bu ñawloo du ko jot dëgg la kon équité moo fa gën mhm. mooy na nga fexe ba kenn ku ci nekk lay àqam nga jox ko nga jox ko te imaam Aliou mhm. da nga wax lu am solo euh, mooy cër yi yàlla jox jigéen euh, danga fi wax léegi loo xam ne ñu bari xamuñu ko léeg-léeg nga dégg jigéen juy wax naan euh, waaw kër gi fifty fifty la naa jox waaye loolu moom moo sonal boppam moom terewuñ ko wut am. Mhm. mën naa am. <laughs> dëgg la wut amal boppam. waaye bu ñu demee ba ci dépasse nag ñu ne ko yow waroo xa dépasse góor a war a mu ne bàyyi faussement góor ay dépasse léegi kay yow noppalatoo sa bopp yaa sonal sa bopp. yaa sonal bi ci gën a yi ci gën a neex mooy maa ngi jigéen ñi nag. Ah. Ah. mooy xëccoo bi yëpp mooy fu nooy fa la ñuy xëccoo. gender hmm. equality bi yëpp mooy nañ ci office bi ni ñuy wàllu wàllu député nañ ci mm. am kii ni ñuy tànnee wàllu ministre nañ ci ni ñuy tànnee waaye ni ñu ni ñuy demee ci waar wi mm-hmm. ci noon mënoon nañu xëccoo ni ñuy maçon ni ñuy maçon yi sax mm-hmm. maçon dama ci dama ci bopp ni ñuy defee kii ni ñuy def yooyu waaye nag lu nooy li mm-hmm. foofu la xëccoo bi ne te it naa Ousmane réew moo gis ñi jàng ñëpp xam nañ ne képp ku nekk banqaas bu bu nit mën a am bu la sa bu la fa xam-xam bu set yóbboo rek danañ la ko jox muy góor muy jigéen waaye fi mu ne nii danañ def ay loi yoo xam ne danañ mën nañoo toog ba gis borom xam-xam sax waaye fi mu ne danañ xeex comme jigéen daal dafa war a ne dafa a ne di fi jigéen dafa war ne ko ko jàng sax waa jigéen a ne nañ nañ yemale loolu ndax suñ bopp la mhm. jaara bi ko batee beneen bi ci des mooy mhm. ah, bañ xeex l'islam moo waral na lu bari Seydina Ousmane mhm. jigéen bu xelaatoon fu ko l'islam jëlee ba fekkee ba yàlla di nettali ne wa idal mawudatu su'ilat bi ayi dambin qutilat bi yàlla di nettali ne ay eh, yéen yéeféer yi yéen a doy waar mhm. yéen a suufeel jigéen yéen a suufeel jigéen yéen suufeel jigéen ba ku am doom bu jigéen mhm. wàqi ba mu xóot nga suul ko ne jigéen neexuma mhm. pourquoi jigéen mënta xeex jigéen du xare jigéen du def lii loolu lépp yàlla taxaw ne da ngeen koy teral far force da koy jox lépp far force Seydina Ousmane loolu teraanga juree nga am nag lu foo ko méngale mooy nga méngale kooku yarin bu njëkk ba nañu yare on sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mhm. te jigéen def ko ko mhm. sayidina Ousmane côté boobu li ñu ci jàng rek mooy nu nit mën a mel mhm. nu ñu mën a taggee góor mbaa jigéen jigéen a ko waral dëgg la lu ñu mën a tagg ci góor mbaa jigéen jigéen a ko waral sayidina Ousmane baa xam nga ne góor su fekkee ne li lislaam tëral def nañ ko góor xamul ci kër ga dara góor xamul ci kër ga dara parce que góor li ko lislaam wax mooy boo xëyee demal demal boo wutee ba ngoon boo ñëwee nañ la jox reer boo reeree yàlla ne emal ci sa kër bul génn doxi boo reeral tëri boo reeree tëri <laughs> est-ce que kooku mën naa xam ci këram la fay daw mm-hmm. jigéen kër njaboot bu baaxee rek jigéen a taxaw mm-hmm. eh, bu doon nampal kese la déedéet waaye du nampal kese dañ lay nampal waaye dañ lay nampalal ay jikko mm-hmm. Seydina Omar luñ ko mën man di tagg papaam góorgóorlu na ba amal ko yaay ju baax muy Amina Amina doonoon jigéen joo xam ne sang la woon ca biir màkka mhm. respect goon boppam ca biir màkka mhm. doonoon koo xam ne ku ñëpp tegoon bët la ngir mbaaxam mhm. Amina moomu jur sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla it séddu ko ku ko nampal mooy xalimatu saadiya xalima doon koo xam ne ku ñu respect la ku ñàkkoon la waaye masta jaay ngoram dëgg la ku ñàkkoon la masta jaay ngoram ñàkk jaay ngor gi moo waraloon mu summeeku ànd ak jëkkër ji daw di daw di uti fu mu nampalee ngir am lu mu liggéey ngir man a dépassé ci biir kër mm-hmm. kooku nag muy xalima ak amina gannaaw bu yàlla wéyee yàlla wax na yonent saa a wax na yàlla def na ci man lépp waaye ñii ñoo ko tàggat dëgg la surtout xalimatu saadiya wax nañ leen ci waxtaani weesu ne ci kër xalima Seydina Ousmane mm-hmm. fa la xamee génn dem liggéey yi mm-hmm. fa la xamee ne dama war a sàmm parce que eh, foofu lañ ko tàggatee foofu la xamee lu bëree bëri fa la màggee fa defee lu bëri Seydina Ousmane ci xalel yaa seetaan nuñ ko rek ni kii nii la mel waaye dañ koo yar mhm. tombeel it yàlla dugal ci loxoom waaye liñ ci mën a jàngee daal seen Ousmane ci li mu gudd mu gàtt mhm. moo di ne fu waay fu ñu mën a teggee nit mhm. ci ay jikko jikko yu baax ngor jom góorgóorlu kat ñafe kat nañ xooli ndeyam ndey ja bàyyiwut ndey ja bàyyiwut doom ji yar na ko dimbale na ko waxal na ko ci ëpp baay ja fekkewut parce que baay ja toujours mu ngi ci àll bay dox mhm. moo tax li ëpp ci nit ñi seen yaay la ñuy gën a jege seen yaay la ñuy gën a déggoot moom la ñuy gën a mën a waxtaanal moom la ñuy na a demaat Seydina Ousmane la kàddu te imaam bi daf leen jox ñetti yoon pouvoir mhm. benn bi dafa wax ne ayu mamraatat maatat mhm. wa zawjuha radin anha daqalal janna macha allah dafa wax ne jigéen bu mu man di doon su góorgóorloo ba def li ko war ci jëkkëram ba ngërëm jógee ca rek nee na dana tàbbi aljanna waaye amul benn góor bu ñu wax ne bu soxnaam yi kontaanee mu dem aljanna <laughs> kon foofu ñoom ñoo fa am pouvoir mhm. beneen pouvoir bi mhm. nga xam ne yonentu bi sallallahu alayhi wa mhm. euh, daf ko jox jigéen ñi dañ ko laaj yan ñetti yëf nga gën a fonk nañ bàyyi xel bu baax ñetti mbir yi yonentu bi jël taaj ko ci kanam ñan ñetti yëf nga gën a fonk mhm. daf ne julli mhm. asalaatu mhm. ñu ne ko ak ban mu ne ak lisko lañ muy parfum ak ban mu ne ak jigéen xoolal ñetti ñooñu seen maanaam ñaar ñi jiitu jigéen rek xoolal liñ taxawe macha xoolal julli lim taxawee ci nit mooy defar mboolem bon bonu biir yi ni ko alquran waxee ne ñu inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar lépp loo xam ne xetug biir la war a nekk muy xetug baatin julli moo koy yéwénal nga xool parfum ca la muy représenté ci nit bu ko fekkoon ne nit ñi xam nañ ko ni ko yontu bi fonkee woon lépp lu war a doon xetug biti moo koy yéwénal nga xool jigéen ni ko sunu borom waxee mhm. hunna libaatul lakum mhm. wa antum libaatul lahun macha allah ni nga ko war a protéger waaye moom mooy sa sutura mhm. hunna libaatul lakum wa antum libaat li li nga doon ci moom la doon ci yow ci yow mutiloo sax waaye mooy defar société mooy defar société mooy sax mooy daara ji bu yéwee ne lépp yéwee macha allah beneen bi ci des mooy ndeke jigéen kenn mënul baaku ci kanam maanaam koo fi fonk ak fooraay gëm man di foor mm-hmm. ana yaayam la ñuy njëkk laaj mm-hmm. beneen mbir mi yonent bi jox pouvoir jigéen mm-hmm. dañ ko laaj yaay ak baay kan lañ ci war a gën a taxaw mu ne yaay ñu ne ko suñ paree yoon woowu first round demaat ci beneen yoon kan la ñuy gën a taxaw mu ne ah, yaay am na ñaar kat xanaa doy na léegi kan lañuy kan lañ ciy teg mu ne yaay macha allah. yaay am ñett. ñu ne ko léegi buñ paree mu ne baay. baay doog am benn. macha allah maanaam tey ci xel niñ koy nattee. Mhm. mooy bépp cër boo war a jox yaay. Mhm. ñaari way jur yi. Mhm. boo koy séddale na yaay am ñett. foofu kenn waxul fa góor ñaar jigéen benn. jigéen ñett góor benn lañ wax. Seydina Ousmane Seydina Ousmane eh, jigéen ñu amee lépp. Eh, eh, Imaam Ali Mbaye moom ma daaneel. bëgg a waxtaan ak suma mbokk jigéen léegi dafa am jafe-jafe yu bari yu dugg mhm. yoo xam ne ndeysaan ñàkk xam seen cër la mhm. waaye damay wax ne ñaari yëf imam Ali mhm. euh, jigéen ñi wala nit ñi doomu aadama yi suñ ko tuddee rek dañ koy dëkkale fu metti bu ñu waxee cër bi lislaam jox jigéen dañuy wax ne ah miraas rek lañ ci lañ ci àtte dañuy wax ne waa góor ñaar jigéen benn lislaam dafa discriminer jigéen ak góor soo ñëwee ci sariya loo dama koy faral di wax soo ñëwee ci sariya loo it boo waxee ñoom atteeb ray ba rek la ñuy xool duñ xool good governance yi sariya tëral nga xam ne yoon la pour jub ak njubal mm-hmm. ak atte jox kenn ku nekk justice dëgg yooyu duñ ko xool mais benn rek lañ cay tànn euh, man suuxal ci lépp mm-hmm. su lislaam waxee jigéen ne na toog ci kër gi su mm-hmm. lislaam waxee ne na ko góor takk indi yooyu yëpp pouvoir yu jigéen am la mooy ni nga ko waxee kon fa tabaarakallaahu Euh, te it masul l'islam masul leen a bàyyi ñu yaafus man may jàng benn alquran bi yàlla di wax naan innal muslimina mhm. wal muslimaati mhm. foofu equality la mhm. wal muminina wal muminaati wal xaanitina wal xaanitaati wal saadiqina wal saadiqaat bépp maqaama góor di am rek jigéen dana ko am dëgg te boo demee ci tiyaabo imam ali yàlla képp ku ko jëfal julli farata boo jullee ci mbooloo tey góor ak jigéen ñëpp dañ leen di fay tiyaabo donte jigéen am na lu ñuy moytu ci moom mhm. ngir mu def ko ca mbooloo waaye bu dee am màggat la mhm. bu demee ca mbooloo ma julli moom màggatam góor ga jullee yam mhm. bu dee ne danga toog julli farata ñu fay ma lañ may fay lañ lay fay kon fa tabarakallahu jigéen l'islam daf ko mas a joxti waaye imaam Aliou jigéen dafa yàgg am taxawaay ci biir l'islam su fekkee fàttaliku nañ gannaaw bi ñu la waxee ñaar ñii yar waaye nañ bàyyi xel sunu yaay xadijatu mm-hmm. nañ bàyyi xel asmau bint abi bakr mm-hmm. ñii nga xam ne fa tabaarakallaahu kenn ku ci nekk dafa am taxawaay yu mu amoon ci kanam mm-hmm. yonentu bi sallallahu alayhi wa ba tax diine ji am ay jéego yu mën a def fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu euh, macha allah Seydina Ousmane wax nga lu ama am solo mooy gannaaw bu leen yàlla joxe tiraanga ju rëy a rëy ñoom it nañ yàlla na Ousmane jigéen lim mun ci àddina bariwul góor ñu ko mun mhm. góor mën naa am xam-xam mën naa jëfe doole mhm. mën na def lu nekk waaye lu yéwénal lu yéwénal loo xam ne day defar àddina mhm. waaw loolu lu ci jigéen mën a liggéey kenn mënu koo liggéey fa tabaarakallaa mu doon lu yéeme nga junj nag lu ama am solo mooy yàgg nañoo taxaw lislaam Seydina Ousmane jigéen yàgg na taxaw lislaam yàgg na taxaw sax waxuma sax lislaam waaye àddina lu jiitu lislaam adina ci bopum yag nako taxaw xolal ku ñuy tuddé Khadija Khadija nga xamné moy mooy bénal soxna su sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam liko bol ak yonent bi lan la moy fekk Khadija muy taxaw adina la fekk Khadija mu don business mu don business kat bu maga maka. mag ci bir makka di uti ay marchandise di indi wa makka yeb di jeriñu mu don ko xamné bu don jamono joju lañ wax né millionnaire la way ku bari alal la ku amone doole la ku amone kaddu la ku góor ñi daan déggal la ku jigéen ñi daan déggal ku góor ñi daan bugg a dog ay buumi gàcce di jaaree ci moom la sayidina moom sallallahu alayhi wa sallam li taxoon mu mën a takk soxna mooy gis ngir ngir ah, bugg liggéey mën a takk soxna loolu li ko ko dimbale mooy Khadija sayidina Ousmane kon Khadija balaa lislaam balaa ñoo wax sax waxi lislaam Khadija nit loon koo xam ne dafa yàgg taxawu nit dafa yàgg taxawu mhm. société bi dafa yàgg taxawu àddina loolu nag yàlla terewut ko benn jigéen. dëgg la ba léegi mu ngi bëgg jigéen. Mhm. mën a dem uti marchandise. Mhm. ba léegi mu ngi bëgg muy business. Mhm. ba léegi mu ngi bëgg muy jaay ak jënd. ba léegi mu ngi bëgg muy liggéey ba léegi muy waaye leen rek la ko sant. mooy wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyati luula. dëgg la ba pare waqul na qawlan maarufan. waqul na qawlan maarufan. ñaari rek la la sant moom yàlla. benn bi mooy sa jëmm respect ko beneen bi mooy sa kàddu respect ko. yalla neena bo respecté sa ñaar yi ci boy genn ak boy dugg da dara du xew waxon na wa keur yoonent bi neleen mom yalla nga xamni ñoy suñu roy ne amna am xamne bu len bu len yombal muko se sa wax sa digeenté ak ñom la tax daxna fil qawl sa wax bul nekk di wax sa baat bi di melni di di wut lo xamne ne da ngay ubbil sa bop nit ñi da ngay ubbil sa bop goor ñi yalla ne bu len def lolu benen bi ci dess moy bu ngeen génnee ku len xol na len naw buñ ko buñ ko gis ci sen cholin buñ ko gis ci seen waxin bu lii xasee am defar leen àddina ni ko Xadija doon defaree benn dem leen business yi dem leen ci office bi liggéey dem leen fii dem leen fii li leen sant rek mooy li ma leen wax noonu Seydina Ousmane Xadija taxawu àddina balaa yonent bi ñëw sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi ñëwee mu defati beneen liggéey bu am am solo mooy bi yonent bi ñëwee Seydina Ousmane xoolal business boo business kat boo xam ne àddina yëpp la soxla booba kenn kenn kenn tiimagul la daanaka. Mhm. bi nga demee tey ba nga xam ne am nga borom kër. borom kër gi doon xale boo xam ne ñaar fukki at ak juróom la am. Mhm. yow nga doon mag moo xam ne ñeen fukki at nga am. Mhm. ba noppi ëpp alal. kooku bu fekkoon ne keneen la seetutoon leneen dootu du sëy Xadija. la du sëy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaye amut ci loolu mu sëy ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi sallam. mu ngi am fukki at ak ñaar fukki at ak juróom. moom mu am ñeent fukki at. mu xam ne la ñuy tuddee jëkkër garaat la bu yàlla dogal moom mënul ci dara hmm. ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa hmm. bimaa fadala llaahu ba'dahum alaa ba'din wa bimaa anfaqu hmm. mu xam ne yàlla maanaam boo xasee am jëkkër jëkkër kilifa la bés bi mu amee jëkkër bés boobu la doon miskin ci kanam yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam bés boobu la wax yonent bi ne ko lu may am lu may bëri bëri alal lu may bëri bëri kàddu lu may am am doole ci biir màkk luñ may fonk fonk fonk tey jël naa suma alal suma kàddu suma doole suma jëmm lépp jébal naa la ko yaay kilifa gi ci la yonent bi kontaan lool jaara bi ko wax ko ne ko kontaan naa lool waaye nag Xadija du ma business du ma business man te alal ji dafa war a dafa war a di yokk ni ñuy def mooy continuer liggéey bi man ma continuer ci ma mission bi ma yàlla jox su ko defee ñu ñaar ñu jàppalante ne ko góor gu Mouhamadou Lamine ba daan waxee ndeysaan yal na ko yàlla yërëm Xadija bu xëyee doon góor doon mhm. jëkkër carrément di daw di borom kër gi di daw guddeeg bëccëg bu ngoon jote mu doon jabar mu doon soxna soxna jébbal léppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. kon loolu li ñu ciy jàngee rek mooy dëgg-dëgg jigéen ak maqaam mu mën a am mhm. yàlla def ko daf ko dugal ci ron ombrella góor mooy def ko dugal ci ron parasoor ak góor góor goo xam ne dana ko dana ko xëlif nemut ëlif goo xam ne da nga koy da nga koy def ni jaam wala da nga koy da sonal doo nekk dictateur daal déedéet waaye élève gi mooy dangay ngay nekk protecteur nga xam ne léegi hmm. lu ko war a dal ci sa kaw lay dal hmm. jigéen bu amee alalit ak fu mu mënti dugg di génn it hmm. na góor nekk ca bopp mooy exemple na ko jigéen na ko góor jox ndigal bu ko góor xasee jox ndigal la muy tegtale rek mooy góor fas na yéene une responsabilité bi lépp lu ko war a gaar parce que moo ko jox ndigal buñ ne tey am na coow police jëkkër ji mooy jóg parce que ma la lu nekk mën na lu nekk mën naa xàppun mhm. buñ ne mu ngi ca yoon yi tey dafay dem otoom am na jafe-jafe yàlla ne góor ati jugal jigéen moom du nekk mukk ci ron oto mhm. dawal nga lijjanti ji mécanicien boo ko defar parce que yaa ko wax mu dem liggéeyi mhm. loolu yëpp mooy yàlla nga ko koo xam ne daanaka daal soldaaram la wala bodyguardam la boo xam ne moo tey Imam Ali bodyguard président mooy yërëf ñëpp waaye protocole am ak bodyguard am dañ koy yëlif dañ koy yëlif macha bu bëggee jaar fii léeg-léeg ko wax ne ko doo fi a jaar macha allah bu bëggee def ñu ne ko fii loolu la الرجال خوامون على النساء مين ما شاء الله mooy protection la boo xam ne da ngay dox ci ay waawam ay waawam te parce que moom moo xam ni mu lay protéger te it beneen secret mu ngi ci soo gisee yàlla ne secret mu ci soo gisee yàlla ne dëgg-dëgg góor war am ci yéen kàddu gannaaw boo xam ne ngëneel lu yàlla def la ba pare mu ne leen beneen sabab bi mooy yéen lu ngeen am denc leen waaye góor lu mu am na leen ko jox wa bima anfaqu min amwalihim waaw yéen lu ngeen am denc leen su la neexee ngeen jënd diw su la neexee ngeen def loo xam ne mooy loolu yàlla ne loolu ànd ak loolu lu am na leen ko jox comme que lu mu am na leen ko jox nag dara deseetu dara naa ko may lu ñu tuddee kàddu am benn scénario bu ma seetaan bu am njëriñ boo xam ne ndeysaan ña ko doon def sax duñ jullit ña ko doon waxtaane duñ jullit dafa am ndaw soo xam ne dafa dem ci benn séminaire ndeysaan mu sol lu lu lu yiwadi loo xam ne dënnam ay weenam yëpp a ngi feeñ ci biti mhm. mu xaw a nag yàlla dogal mu agsi fekk ñëpp toog bi mu ubbee bunt bi ne teel dugg bi mu duggee ka jiite woon barab ba woo ko mu génn mu ne ko kaay ma gis la mu génnee taxaw imaam Ali mu ne ko soxna si ndax mas nga gis wurus ci mbedd kese nii rek mu taxaw hmm. mu ne ko déedéet mu ne ko ndax mas nga gis diamond nii rek defuñ ko ci bagage ëmbuñ ko dakkuñ ko dencuñ ko mu mhm. ne ko déedéet mu ne ko ndax mas nga gis silver ci mbedd mu ne ko déedéet te dara dara wóoru ko protégul ko mu ne ko ndax xam nga ku gën a fort xam nga lu gën a fort diamond ak silver ak euh, góol mhm. mu ne ko déedéet mu ne ko sa yaram wi doo mhm. jigéen ji dëgg la sa jëmm ji moo gën a fort silver moo gën a fort diamond moo gën a fort gold. macha allah mu ne ko mbaa xam nga ne diamond su nekkee ci mbedd dara ëmbul ko dara protegul ko tëjuñ ko dencuñ ko. Mhm. mbaa xam nga ne danañ ko sàcc. Mhm. boo ko jëloon teg ko ci mbedd mi nii rek foqarti kat dana ko foqarti wala këf kat këf ko. Mhm. mu ne mu ne ko sa yaram wi saa yoo ko defee ci mbedd mi. foqarti kat dana la foqarti mbaamu këf la. mu ne ko te yow yaa gën a foor Diamond yaa gën a foor ni ñuy protéger Diamond ba nga xam ne boo ko amee yow mi ko bëgg a jënd sax da nga koy séen rek de waaye doo ko laal doo ko mm-hmm. jege. Mm-hmm. mu ne ko defal noonu sa bopp. góor ñi nekk euh, kiliyaan di mm-hmm. jënd góor ak Diamond. buñ ñëwee ba gis sa jëmm ji gën a foor Diamond ak góol. danañ la waxante ci. waxante bu set mhm. te dañ la jëndee ci njëggu nga jëggu ko macha allah tabaarakallaahu kon tey bu alquran ne wala tabarraj na mhm. mhm. tabarrujal jahiliyatil ula mu teg ci ne euh, waqulu qawlan mahrufan tey jigéen am na nu muy waxee moom mooy attract nit pour ñaawteef wala lu bon wala mu ñàkk ko jox gëddam tey buñ ko joxee gëddam rek moo mooy ne dafa delloo ci ni ko yàlla bëgg mu mel ko dëgg la waaye bu delloo bu génnee ci ni ko yàlla bëggee woon pour mu mel ko rek mhm. lu ko lu ko warta dal dina ko dal euh, lu ko luñ ko warta wax dinañ ko ko wax luñ ko mhm. warta def dinañ ko dëgg la kon imaam Aliou mu mel ni euh, li ñuy mujjee ci jigéen mhm. te di ko wax tey mooy ñoom ñooy école bi war a defar àdduna macha allah te dañ koy defar ci ñaari mbir benn bi mooy dañ koy defar ci seen jikko ci seen bopp benn bi mooy dañ koy def ci seen sëy ndax imaam Ali dafa am mbir moo xam ne wolof aada da koy wax de mais yàlla daf ko ci fekk wala dañoo fekk yàlla dogaloon ko mooy ne maanaam ku sëy na nga war a sëy yàlla barkeel say doom li ñuy wax liggéeyub ndey añub doom euh, du liggéey yëpp dem fóot wala nga soq de déedéet mooy nga rafetal sa sëy ci jikko yi nga xam ne moom la yàlla santaane nga war ko toppee sa borom kër mhm. ndaxte àdduna bi dara yàqut ko lu dul ñàkk kilifteef mhm. léegi waajur yi li fatu doom parce que indi nañ li ñuy ooyee euh, Charles Wright euh, jigéen jëkkëram yilifatul ko indi nañ li ñuy woowee euh, naka women's right mhm. léegi mbedd mi sax kenn yilifatu ko parce que li ñuy wax human's right léegi right yu bëri yi nga xam ne dañ koy wax te yàlla joxe woon ay raayit ba pare mhm. ñu teggi fa raayit yàlla yi def suñuy raayit mhm. suñu raayit yooyu moo ñu yàqal te suñu dund te jigéen su delluwaatee ci vali yi mu amoon mhm. delluwaat ci teguwaayam toog ca dëgg-dëgg foog nañ ne société bi dana war a jekk dana war a jekk Seydina Ousmane ku wàcc sa ànd rek and boo dem fekk borom fekk toog ca waaw fi ne nii danañu dañoo wàcc sunu ànd ñun jullit ñi rek laay wax dañoo wàcc même sax même sax ñun suñu aaday sax si naaw son balaa ñoo nekk sax ay julit hmm waye da nga daan fekk aaday yu baax ci kër yi hmm nit di ak mbokkam Ousmane ñu ngi dëkk ak ño xam ne duñu ay hmm waye téwul da ngay da ngay fekkel ali yo xam sen ci cosaan la ñu ko bayyi ci sen ñu ko bayyi ci sen bop bayyi ci sen ñu ko bayyi ci seen bopp ñu ngi leen koy taggee ñu ngi koy fonkanté mhm. di jigéen di ko sàmmee boppam di ko sàmmee ngoram mhm. eh, du def naka su dul noonu ba ba muy amee jëkkër loolu yépp aada mbir la yoo xam ne mhm. xam ne ñoo xam ne balaa lislaam di ñëw def leen ko fekkee ba lislaam ñëwee nag moom itam mu bàyyee ñu ay aada ak melo yoo xam ne mhm. eh, jigéen jum nekkoon fa mhm. tabaarakalaaw eh, loolu jigéen ñu yëkkatiku lay doon nga wax moo wax ju am solo nag mooy ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk borom mu toog nit ku yàlla bind koo xam ne jamono lay waxee time lay waxee ci space lay wax moom buy dund li ko intéresse ci lay waxee. Mhm. li muy jàkkaarloo ci la xelam di daw. Mhm. bokkut ak koo xam ne dafa bind xel. Mhm. bind taay bind dund bind dee xam seen lépp ba noppi wax leen. yàlla mi xam suñ dund xam suñu dee xam suñu time xam lu ñuy dundee xam lu ñuy doxalee moo tëral ci àddina ne na jigéen mel nii na am cër bii na góor mel nii na am cër bii saa yu wàccee wa man yataxadda hududallahi mm-hmm. faqad zalama nafsahu yàlla ne saa yu leen bàyyee xel rek saa yu ngeen wàccee yoon yu ma leen rëddal rek mm-hmm. yow da nga yëg ne tooñ nga sa bopp mm-hmm. gis nga léegi ak xaraayit seek yu ñuy xeex yëpp ñoom ña ko doon tëral dem nañ ba ñu ngay toog di xelaataat yàquteeku àddina gi fi jamono bi toll ni ni na daanaka famille amatul kenn respectatul kenn xale respectatul xale amatul yar jigéen amatul teggiin góor nangam yooyu yëpp ñoom ci seen bopp ñu ngay xelaataat loolu lu ko waral mooy dañoo dañoo bàyyi fi leen yàlla wa émale woon wa man mm-hmm. yataxadda hududallahi faqad zalama nafsa yàlla bu ne la sa kër mm-hmm. boo génnee danga nga tooñ sa bopp mm-hmm. yàlla bu ne la génnal booy génn génni xal boo wa boo bàyyee génnin bi da nga sa bopp yàlla bu ne la booy wax waxal waaye waxee xel nii boo baaxee waxin wala yàlla wax da nga tooñ sa bopp kon nag eh, pour société bi dellu fa mu nekkoon ci xayma ya ñu amoon mooy value ya ñu amoon ci dal ga ñu amoon ci jëkkër euh, clipteef gi mu amoon jabar topp jëkkër jëkkër yërëm jabar ànd bu rafet boobu ñu amoon pour ñu am ko mooy fokk ñu dellu ci ni ñu yàlla digalul ñu julli ci ni yàlla digalewul ñu nekkee ko ñun jullit Seydina Ousmane jigéen doo ko doo ko xam te takkaguloo ko fi mu ne da ngay xam xam xamati doo ko takk jigéen jooju est-ce que dana respecté dana la def kilifa du def benn yoon kilifa. Mhm. bés bu ngeen toogee mu wan la rek xamoon naa démb ñun ñaar ñii lañ meloon. te mhm. mënoo maa maa jaay lu amut. dëgg la loolu nag li ko waral mooy dañoo bàyyi lañ daan lañ daan demee koo fi gis ku ne jigéen joo fi gis joxe na joxe na joxe na jëmmam ji. Mhm. joxe na taaram. joxe na ngorom. góor goo fi gis mën a a muñ jigéen parce que jigéen ñoo bàyyi seen seen yaram ci biti mhm. ñu ngi ñu ngi jaay seen bopp ci biti ñu ngi may loolu moo tax nag Seydina Ousmane pour ñuy pour ñuy respect mhm. jabar respect jëkkër mhm. jabar loolu daanaka amatul limite li ci gën a doy waar mooy doom dootu mën a respect kilifa lu tax mooy da ngay toog nga jàkkaarloog sa télé wala yaa ngi seetaan film boo xam ne jëkkër ak jabar ak njaboot ñu ngi toog di ko seetaan lañ cey gis kenn ba pare at the same time yéen a ngi jàngal seen doom ne ñun nii lañ meloon. Mhm. yu yëpp moo tax moo tax xeex bi dafa yàgg. Mhm. xeex jikko la. Mhm. xeex mbaax la xeex ngor la xeex jom la. xeex bëggante la xeex jaamu yàlla la. loolu nag dafa yàgg. li koy saafara rek dëgg-dëgg. mooy lañu yàlla lañu ñu bi bàyyee. ak yàlla wax ñu ko nañu ca dellu. nañu dellu ci yarub alquran. nañu dellu ci yarub sunna. sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nañu roy suñu kilifa yu baax yi mhm. nañu roy suñu kilifa yu baax yi sayyidina Usmaan li gën a doy waar fi mu ne nii mooy danañu fexe ba kilifa koo mën a boo bëgg a roy dañ la wan ne yéen ñaare yem waaw ah, maanaam fekk fekk foog ñu wan la ayib ci foog ñu wan la ayib moom mhm. sayyidina Usmaan te mag ñi ak nit ñi dañ daan dund ak ayib yi mhm. yonent bi jamonom da da fekk ayib yi ayib yi nekkaloon ci saaba yi bëri na mhm. waaye dara dafa jàngale dafa jàngale hadis bu am solo mhm. daf leen waxoon ne bu leen fàtte mhm. ne na ngeen def lu ñuy tuddee suturalante loolu moo loon doo gis benn ayib ku xamal sa morom dara da nga koy noppee sutura soosu nag moo fa yàggoon fa tabaarakallaahu ahsanal xaaliqiin jàngal li sa turandoo jàngale woon mooy Seydina Ali ibn Abi Talib ñu waxoon ne fa tabaarakallaahu bu nit ñi xamoon Euh, na safara mel mhm. xam ni jahannama mel mhm. mu ne noon dootuñ am jotug mhm. di lijjanti seen ëyi bi morom dëgg dañuy xëy rek sax di defar ci seen ëyib ngir bañ faa dugg benn la ci yi wax beneen bi nga xam ne des na ko jàngat mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ad dunya kullaha mataax wa gayru mataa dunya al maratu saaliha allah nee na àdduna lépp matériel la même góor ñi sax matériel lañ même góor ñi ñëpp sax matériel lañ hmm. waaye matériel bi gën ci matériel yi hmm. mooy jigéen ju baax kon jigéen foofa wane nañ gënee lam ci wàllu góor macha allah ne boo amee jigéen ju baax moo gën nga am leneen lu dul moom leneen lu dul moom macha allah tabaarakallahu euh, ñu nga wax fii tamit nañ roy suñ kilifa yu baax yi hmm. ci tomb yi ñu war a jàngat suñu menn mag daf doon wax ne maam Cheikhul Khadim daf doon wax ne su fekkee ne jaadu na pour may roy tubaab ñett rek laa gis yu may xemem roy ko ci ñoom mhm. maanaam nasaraan su ma ko doon roy ñu ne ko ban ban mu ne nangoo liggéey mhm. ñu ne ko ak ban mu ne ak fonk seen kàddu mhm. ñu ne ko ak ban mu ne ak setal seen bërëb <laughs> seen dëkkuwaay mais ñett yi de su ma xoolee seen mbir danaa xemem su dee war naa leen roy ma royee ko ci ñoom ndax jullit bu ne war naa fonk kàddum jullit bu nekk war naa nangoo liggéey mhm. jullit bu nekk war naa sela setal dëkk fa dëkk waaye ndax an nasaafatu min al iman macha allah kon imam ali loolu lañ tënkee euh, discours bi nga mujj wax euh, ñu wax la nga wax sa kàddu yu mujj ndax waxtu ñuy jàmm ji ah, li jéggalu ñëpp rek euh, Seydina Ousmane daf ko def li ñuy tuddee islam ak jamono daanaka mhm. mooy bi ñuy waxtaani ñu ngi waxtaani yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mhm. waaye ànd ak loolu xam ne kër na bi la ñu wax ci la lépp di xewee lépp di xewee ndax nabi mooy borom kër gi mhm. fa tabaarakallaahu mooy borom luwaa bi moom la yàlla jox luwaa bi mu di ko jàngale mhm. moom la yàlla jox dund ñu di ko jàngale moo tax it eh, lii ñu di ko waxtaane ñu boole ko ci mhm. waaye di leen fàttali rek ne incha allah bu ngeen ñu toppee danañ waxtaan ak yéen ci beneen jamono ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi woon ci mujjanteelu dund ak maamam ju ñu tuddee Abdul Mutalib maamam jooju war koo war a génn àddina di ko jébbal bàyyi taxam bu ñu tuddee Aboo Taalib incha allahu taala ci beneen waxtaan danañu continuer ak yéen ci foofu noonu bu ci yàlla àndee ñu ngi jégalu ñëpp di am mbégte kontaan di leen ñaanal Seydina Ousmane. kon mbokk yi a ko dégg tey dañu defoon rek waxtaan pour jagleel ko jigéen ngir dañu wax ne bés bii lañ leen jagleel. macha allah te ñu jàpp ne euh, loolu tuuti na. ndax euh, yàlla daf leen jagleel dund nit ki lépp. macha ndax tey képp kum di doon soxla nga way jur. dëgg jur yu bu laan amee ba nga masoor. Mm-hmm. soxla nga soxna. Mm-hmm. soxna soosu ñaan nga yàlla yaag moom ngeen tàggoo ci bàmmeel. kon kenn ku nek da nga wara a euh, dund ak sa morom giiru dund kon waxtu yi lepp dañ ko wara jox jigen ngir solo sumo am ci sunu dund fa tabarakallah kon euh, mbokk ñu ñuy wone waxtu wi euh, jeexna ñu gëreum techniciens ak cameraman yi nga xamne ño doon japp ci bi gëreum imam ali bi nga xamne mom lañ doon andal ci waxtan wi waaye ñu gëreum len mbokki téléspectateurs yi ñu fatale len nombre téléphone yi 3900 412 3900 412 wala nga jokkoog man ci 3432 658 3432 658 ñu di leen jox dox dajee beneen ay bés bi ñëw ci waxtu wi wa axiru dahwaana alhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ما شاء الله لا إله إلا الله الله أكبر